asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax di leen dalal fii ci biir Dakar Media TV comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen topp l'actualité yi en temps réel di leen ko euh, baaxee ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xam ni moom moo ñeel arrestation bu lutteur bi di Lac de Guiers 2 moom Lac de Guiers 2 nag ginnaaw biñ ko tegee loxo pour affaire escroquerie ci wàllum euh, visa yi mu digoon yóbbu ay euh, nit te mu amoon ci nag lu tollook dix plainte yoo xamante ni rek mu ngi ci ndoddam ginnaaw nag bi ñu fi dawee woon ba ñëwaat fi nga xam ne mooy Sénégal teg nañ ko loxo ba démb ñu ngi xamal ci la am retour de parquet waaye xel Euh, mën na dal ci loolu euh, à faveur d'une médiation euh, pénale mën na ñibbiwaat këram ndaxte rek ñu ngi ñuy xamal joueur sénégalais bii di Sadio Mané teg na ci table bi lu tolloog dix millions de francs CFA pour maanaam mën a compléter vingt millions yi nga xamante ni rek moom lañ koy laaj moom la dëggee de nag mën na dellu këram à tout moment ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ni rek moom mooy conférence bi amoon démb ca UCAD diggante Jean-Luc mélantion ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko sur relations entre l'Afrique et l'Europe moom président du parti patriote le travail éthique et la di Pastef di Ousmane Sonko démb nag daal dinay def ay discours yu baree bari waxtaan ci pàcc yu baree bari ci kanamu Jean-Luc Mélenchon ñëw na nag ni ñoom dañoo bëgg maanaam réussir transformer li nga xamante ni rek moom mooy dëkk bi maanaam Sénégal dans le bon sens fexe rek ba li nga xamante ni moom la ñu diggoon askan bi ci wàllum rupture systématique ñu daal koy matale bu baax a baax moom Ousmane Sonko nag nee na dëkk bi dinañ ko changé par force te dinañ ko changé ci li nga xamante ni rek noonu lañ ko mënee ndax sénégalais yi dañ leen a yónni yàkkam ci leen dafa am lu ñu dit que jeunesse bi te jeunesse bi ñu leen di xaar ci loolu démb nag bi ko waxee euh, ca université euh, bu euh, Dakar thème yi nga xamante ni rek moom Ousmane Sonko daal dina koy cher ñu dégg ko démb ci discours am bokk na ci la souveraineté l'affirmation d'une identité et une euh, indépendance totale maanaam Sénégal am indépendance am démb nag profito waale nag ci nag moom euh, Ousmane Sonko daal di critiquer bu baax a baax Euh, France ni nga xamante ni rek noonu la abstenir woon ci li nga xamante ni moom moo fi amoon ci mars deux mille vingt ba deux mille vingt trois ñu tas seen parti daal di leen euh, tëj seen ay euh, militants ñenn ñi jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti métti ñenn ñu daal di leen faat ci anam boo xamante ni jéggi na dayo maanaam ci wàllum persécution bi nga xamante ni def nañ ko moom ci boppam te France gisuñu mu yéey ci daal di ci yàbbi mu mel ni rek loolu nekk na loo xamante ni rek lu ko metti la ndax dénoncé na ko démb ca kanamu Jean-Luc Mélenchon ñëw na aussi ci li nga xam ni moom moo ñeel franc CFA bi nee nag day yàgg-yàgg rek waaye li nga xam ni rek moom mooy Sénégal ñëw na aussi ci les militaires étrangers yi nga xamante rek ñoom ñoo nekk ci base euh, Sénégal ci frontières yi nekk na loo xam tam moom euh, ci discours am sentir nañ ko mu mel ni rek d'accord ci bu euh, baax a baax ñëw na aussi tam ci attitude bi nga xamante ni européens yi am nañ ko vis-à-vis des su ci mel ni Mali eh, Niger Burkina eh, eh, Faso maanaam daal li nga xamante ni noonu la ñuy dalee seen kaw moom nag ko fenn donte rek ay pays yoo xamante ni dafa am coup d'état la waaye nag moom analyser wu ko comme ñoom nuñ ko analyser maanaam day xool lan mooy les causes réelles ba tax rek dëkk yooyu daal di am li nga xam ni rek moom mooy coup d'état waaye lan moom Ousmane Sonko li mu wax moom mooy pareeguñu te bàyyiwuñu ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy seen ami Sahel maanaam ñi nga ci dëkk yi nga xamante ne rek mu ngi fay dëgmal ay euh, voyage moom Ousmane Sonko itam ñëw na ci li nga xamante ni rek moom moo ñeel wàllum LGBT yi ndaxte rek ginnaaw moom Jean-Luc Mélenchon bi nga xamante ni rek annoncé na ñëw Sénégal gis nañ ay nit di ci yëkkati ay kàddu di ci wax ay wax yoo xamante ni nag jéggi na dayo waaye nag leeral na bëtu sénégalais yi ci bu baax a baax moom Ousmane Sonko ak Jean-Luc Mélenchon ndaxte Jean-Luc Mélenchon moom lu mu bëgg moom mooy wàllum góor jigéen ñu dagalal ko fii nga xamante rek moom mooy Sénégal ndax nag moom euh, mooy mooy ki njëkk a jël boobule loi yóbbu ko ci assemblée bu France pour ñu daal di koy euh, voté kon jàpp na ni Sénégal dañ ko war a defee noonu waaye Ousmane Sonko nag daal di na koy wax carrément que euh, euh, duñ leen topp ci mbedd yi di leen dàq di leen dóor waaye nag fii àdduna du neex ba ñu koy daal di daganal lool moom na leer lu ñeel aussi wàllum polygamie yaakaar naa ni tam Ousmane Sonko daal di na koy leeral bu baax baax ci nopp Mélenchon ne ko moom bis bu bëggee dugg Paris te benn yoon ànd ak ay soxnaam daal di ànd dugg foofu nga xamante rek uh, moom mooy ca uh, Paris ñu ñëw aussi ci annonce bi nga xamante ni rek le PM Ousmane Sonko daal na koy def muy audit boo xamante ne dañ koy daal di xóotal bu baax a baax lu ñeel sept cent dix sept milliards yi nga xamante ni rek état bu Sénégal diggante deux mille douze ba deux mille vingt et woon dañ koo dugal ci li nga xam ne rek moom mooy maanaam construction d'ouvrage et de drainage fii ci réew mi maanaam wàllum inondation bi nga xamante ni rek dañ ko fee annoncé woon nee na dina ama am solo ba xam rek koppar googu noonu fan la dugg ndax gis nañ nag li nga xam ne moom mooy inondation ba tey jeexagul fii ci réew mi ba tey rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci banlieue yi ñu ngi ci euh, souffrir bu baax a baax bu nawet di waaj ñëw rek ku ci nekk rek sa fit daal di demee Ousmane Sonko daal rassuré na bu baax a baax ci wàllu woowule ñu ñëw ci ex DG de la SAPCO bi di maan Ndiaye moom nag jamono ji nag nee na tiit na loolu ci dundam ndaxte tentative sinaa la ko mën a tuddee ndaxte rek dañoo jël ay ruubu otoom kat yépp daal di koy euh, salfaañe amaana sax nat bu dawoon bu baax rek euh, bakkanam mën na cee euh, des moom nag jàpp na ne dañ koo bëgg faat ba na rek nee na niki tey daal di dem porter plainte contre euh, X ndaxte rek dafa euh, craint bu baax a baax ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, dundam ñu ñëw ci Pape ak ki nga xamante ni rek moom mooy Omar Gueye ñi chroniqueur foofu la ca Walf TV daal di leen teg loxo pour diffamation ak calomnie ñu ngi ñuy xamal ni rek Abdoulaye Silla administrateur de société Ecoatra daal dina leen porté euh, plainte euh, avocat bi di euh, maître Adama Dia huissier de justice moom moo leen yóbbul citation directe ndaxte rek Pape Sané ak Omar Gueye ci seen émission dañoo daal di tudd lu ñeel travaux yi amoon fële ca Diamniadio nee nañ nag Abdoulaye dafa détourné kopparu yu takkoo takku daal di koy financer ay influenceurs pour ñu waxal ko ci élection yu ñu génn ci complicité aussi état bu euh, Sénégal euh, propos yooyu daal euh, moom moo tax Abdoulaye Sylla daal di décider porter plainte ki nga xam ni rek moom mooy Pape Sané ak Omar Gueye ñu daal di xamal sénégalais yi loolu nga xamante ni wax nañ ko fan lañ ko teg ak yan preuve lañ ci am ñu ñëw ci trafic criminel plus de sept milliards de billets noirs saisis par la douane ñu ngi xamal ni rek GPR bu Thiès ñoom ñett samedi 11 mai 2024 vers 11 heures groupe département polyvalent de recherche et de répression de la fraude daal di euh, teg loxo ñaari nit yoo xamante ni rek dañoo yoroon ay billets noirs lu tolloog dix millions de euh, ñu ngi xamal ni rek euh, maanaam ñu ngi leen jàppee ci autoroute à bi ba ñuy wàcc ci seen oto pour dem fi nga xamante ni rek moom mooy côté Thiès maanaam danoo amoon rendez-vous d'affaires ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa GPR daal di leen. teg loxo jamono ji may wax ak yéen nag ñu ngi ci loxo yoon ubbi nañ nag enquête pour xool mbir mi nag fan lay mujjee ak ñan ak ñan ñoo ñoo ci bokk. ñu ñëw ci le président Bassirou yi fay au Nigéria maanaam daal dafa demoon pour wàllu coopération avec le principal fournisseur du Sénégal en pétrole brut moom nag démb la daal di jàkkaarloo ak homologue ba fële ca Nigéria. waxtaan nañ nag waxtaan lu euh, yu baree bari lu ci mel ni ci wàllum euh, coopération diggante Sénégal ak Nigéria ñooy dëkk yoo xamante ni rek euh, depuis fort longtemps dañoo am nag ay liens yu particulier maanaam daal jàmm lañu sekk ak salaam ay relation bilatérale en tout cas daal Nigéria bokk na ci dëkk yoo xamante ni rek am nañu expérience loolu ci li nga xamante ni rek moom moo ñeel wàllum euh, pétrole ba tax na rek euh, Sénégal daal euh, s'inspire de l'expérience nigérienne noonu lañ ko daal di xamee pour mun a développer son industrie pétrolière et loolu daal moo waraloon tànk yooyu nga xamante ni rek son excellence président Bassirou Diomaye Faye dem na foofu nga xamante ni rek moom mooy Nigéria maanaam daal waxtaan la boo xamante ni ci ñaari dëkk yi ak ay relation yi nga xamante ni rek moom moom leen seek ci wàllum euh, diggante bu euh, ratax ak ci wàllum euh, liggéey ami chers fidèles internautes di leen indiloon ci seen revue de l'actualité fii ci bi Dakar Media TV di leen jox ni ki demee incha allah rabbi ci leen actualité d'ici là portez-vous bien